Après le discours de minutes du chef de l'État, l'adresse à la nation à la veille de cette fête d'indépendance. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs. Merci de nous rejoindre à cette édition spéciale consacrée donc à ce discours du président Macky comme à à la veille de chaque fête d'indépendance. Vous le savez, il s'adresse à la nation, il vient de le faire et pour décortiquer euh, ce speech, nous sommes sur ce plateau avec euh, monsieur Moussa Diakhaté, il parti Bokugis Merci d'être avec nous ce soir. Bon, merci Madame Tia, merci à vos auditeurs et à tous ces Sénégalais qui nous écoutent mmh. euh, par rapport à ce moment solennel de la vie euh, du Sénégal et de sa nation de manière générale. Et merci pour cette invitation. Merci à vous pour la En face, euh, Monsieur Abdoulaye Diagne, coordonnateur du maire, euh, le mouvement des élèves et étudiants républicains. Bonsoir Monsieur Diagne. Bonsoir euh, Neifato, euh, bonsoir à, à vos auditeurs, et auditrices. Euh, bonsoir à mon co-débatteur Moussa, euh, porte-parole du parti Bok Gis Gis. Mm-hmm. Euh, je pense aujourd'hui c'est un, un, moment important pour nous euh, de pouvoir s'exprimer après le discours du président de la République. Mhm. euh, pour l'intérêt du peuple sénégal Mmh. merci, Alors euh, Moussa, nous démarrons avec vous. Bien sûr, euh, que retenir euh, de ce discours du chef de l'État 15 minutes euh, de discours. Il a abordé beaucoup de points, notamment la crise casamançaise, les conditions des, de travail et de vie des forces de défense et de sécurité, entre autres, les infrastructures également. Mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans, ces propos C'est, pour dire vrai, la dimension laconique est très sobre. J'ai pas vu un Macky Sall, un président de la République qui vante des projets. J'ai vu un homme mesuré et qui mesure l'enjeu du moment et les situations. Il a commencé, si m'abuse, par saluer comme tous Sénégalais notre mmh. exploit au plan sportif mmh. que nous devons tous saluer et en profiter pour le féliciter mm-hmm. pour la qualité du stade sans lequel certainement mm. le défi contre l'Égypte serait très difficile. Mm-hmm. Il a ensuite parlé de la situation en où en tant qu'opposant je m'aligne sur sa position il faut être ferme mm. cette question doit être réglée et tout Sénégalais par les armes par tous les moyens qu'il faut pour amener la paix au Sénégal mm. je peux me tromper mais je pense que ce qui se passe en Casamance c'est plutôt une affaire de banditisme que tout autre mm. l'histoire de la rébellion est terminée depuis les fils casassais travaillent pour que la Casamance émerge. Mmh. Quand des gens prennent des armes, coupent les gens, les tuent ou menacent l'État, un État doit être fort. Hmm. Je marque ma solidarité par rapport au chef de l'État. Hmm. Par contre, là où je, je m'inscris porte-à-faux, un État ne crée pas de l'emploi. Hmm. Ça, j'insiste et je le dis. Xëyu ndaw yi semble être le nouveau leitmotiv du régime en place. Mais en réalité, si on fait l'état des lieux du de la de de de de de, de la DER et autant d'éléments nous nous rendons compte que même si l'esprit l'idée est bonne la pratique laisse à désirer parce que sinon le désarroi que nous avons constaté par rapport à l'employabilité de la jeunesse ne se poserait pas. Mais il fait état déjà de, de 46 334 emplois créés euh, par le programme Réunion généré. Euh, vous, vous savez, pas, pas important. J'ai eu la chance mmh. d'appartenir à de m'intéresser aux questions du département de la jeunesse. Ah. très souvent les chiffres qu'on moi je préfère avoir le ressenti mmh. de la population plutôt que parfois le Par, parfois le, le, président se fait leurrer hein. ah. parfois on le trompe de bonne foi on ne dit pas la vérité mais qui de nous ne, chacun n'a qu'à autour de lui je parle devant un étudiant oui un jeune peut-être qui est beaucoup plus proche que moi de ceux-là qui sont demandeurs hmm. d'emploi, hmm. la question de l'emploi de la jeunesse est une affaire très sérieuse au Sénégal. Je ne dis pas qu'il n'en a pas fait. Mmh. Parce que j'apporte les arguments. Il mmh. a mm. fait. Mais c'est une question lacinante mmh. qui interpelle pour moi changement de paradigme. Mmh. Je suis en phase avec lui quand il parle des pacassènes rurales. Parce que je fais partie de ceux qui pensent. Mm. C'est seulement par l'agriculture qu'on arrivera à régler les problèmes d'équilibre, à mm. créer de l'emploi pour la jeunesse. Et je profite pour conseiller au président, pendant qu'on est en train de déconnecter ces, localités il faut ajouter Il faut créer des commodités. Les jeunes veulent travailler. Oui. Mais on ne met pas entre leurs mains des conditions de travail. Et que malheureusement, que ce qui nous est arrivé sur la DER hmm. ne nous arrive pas sur Réunion eu autre chose. C'est de la politisation. Mm. Je ne parle jamais de manière, de manière fortuite. Parce que pour moi, être contre Macky Sall ne veut pas dire nier ce qu'il a fait. Hmm, Je voudrais qu'on fasse mieux pour que demain, ceux qui vont prendre ce pays-là, puisse trouver un Sénégal stable pour le développer. Mm. Dans, le, dans, dans cette histoire de DER, mm. je mets ma main et toi, tu peux faire les enquêtes. <laughs> On a financé des gens qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat parce qu'ils ont juste la carte du parti ou du groupe. C'est des choses comme ça qui biaisent même, même si la vision était bonne. Était bonne qui biaise tout ce qui devait être fait. Alors, on reviendra vers vous tout à l'heure. Euh, c'est en tout cas ce que vous retenez euh, de plus euh, de ce discours. Monsieur Diagne, euh, vous, qu'est-ce qui vous euh, marque le plus dans, dans, les propos que le chef de l'État vient de tenir euh, Merci beaucoup. Euh, je pense avant de, euh, de m'exprimer sur le discours du président de la République, oui. je voudrais, à l'occasion de, de, ce début du mois de Ramadan, de demander pardon à tout le peuple sénégalais. Euh, prier aussi pour qu'Allah euh, exauce nos prières. Euh, concernant le discours du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, Euh, le ressenti est, est très simple. Euh, c'est un sentiment de satisfaction, euh, de fierté et d'honneur vis-à-vis de sa personne. Parce que je pense aujourd'hui, euh, avec un discours de 15 minutes, mmh. il a abordé plusieurs secteurs qui interpellent la nation sénégalaise. Et ces secteurs-là, je pense aujourd'hui, dans chaque secteur, le président de la République, depuis qu'il est là, il a apporté une touche, une touche extrêmement importante euh, pour le quotidien des Sénégalais. Et mon co-débatteur l'a très bien dit parce que euh, j'ai bien aimé sa posture dans la mesure où être opposant euh, ne doit pas t'empêcher de dire exactement ce qui est bon pour notre pays parce que c'est au-delà de nos personnalités. C'est une question euh, qui est euh, euh pour tous les Sénégalais. Et nous mm. devons agir et nous devons parler pour, pour ce qui est bon pour notre population. Il a, soul, il a touché aujourd'hui une question extrêmement importante, euh, l'emploi des, jeunes. Euh, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec lui en tant que qu'économiste de formation, que l'État ne crée pas de l'emploi, mais il, crée les opportunités euh, pour l'emploi des jeunes. Et le président de la République depuis 2012, euh, il, avait, il avait dit, euh, il avait constaté aussi que chaque année, il y a plus de jeunes euh, qui sortent des universités, c'est-à-dire dans le secteur de l'enseignement supérieur, euh, pour, pour demander de l'emploi, alors qu'en réalité le système éducatif euh, qu'on a trouvé ici en 2012 ne permet pas à ces jeunes-là d'être opérationnels sur le marché de l'emploi parce mmh. qu'il n'y a aucune qualification. Mm. Et, et, pour cela, euh, l'État, à son niveau, est dans l'obligation de mettre euh, sur place des opportunités, des mécanismes mmh. permettant à ces jeunes-là de trouver de l'emploi. C'est ça qui a fait aujourd'hui euh, le président de la République, dans sa vision qui place la jeune au cœur, les jeunes au cœur de sa politique, a mis sur place des mécanismes. Mm. Euh, il parle euh, d'emploi, mais avant d'abord de créer de l'emploi ou bien les conditions, il faudrait assurer d'abord une formation mm. performante, une formation efficace, une formation assurer de qualité qualité, oui. Euh, l'employabilité pour permettre à ces jeunes-là. C'est pour cela oui. on peut aborder le cas du 3FPT. Excusez-moi de vous interrompre. On va juste recueillir l'analyse de Sansom, analyse politique, et, je reviens vers vous. Certainement, il était en train de prendre son dog. Hassan, bonsoir. Hassan, bonsoir. Hassan euh, Samb, le temps qu'il revienne avec nous, vous étiez sur le 3FPT, mmh. une euh, aussi idée du président Sall pour assurer l'employabilité, notamment la formation des jeunes, vous disiez. Oui, euh, allez-y. Oui, effectivement. Donc, je parlais de 3FPT parce qu'en réalité, euh, le président il a compris que euh, au niveau de l'université, après un master 2 par exemple, mmh. euh, quand on te demande dans une entreprise ou bien dans un, un entretien d'embauche, euh, quelles sont tes compétences ou bien qu'est-ce que tu peux faire, euh, y a beaucoup de jeunes qui peinent à répondre à cette question-là. Mmh. C'est pour cela il dit que donc il faut qu'on oriente euh, la formation académique vers la formation professionnelle. Mmh. D'où la création du 3EPT pour mmh. moins permettre à ces jeunes-là euh, d'avoir un métier. Mais au-delà de ça aussi, il a pris une, une, une, mesure importante, c'est-à-dire d'encadrer certains jeunes. Parce qu'il y a certains jeunes aujourd'hui, mmh. après le BFM, ils n'ont pas la possibilité Euh, de faire, euh, d'avoir le bac, par exemple. Mm. Certains ont eu le bac, mais ils n'ont pas aussi la possibilité ni l'opportunité mm. de faire une, euh, euh, un enseignement supérieur. Donc c'est ce qu'on appelle l'école de la seconde sens. C'est hmm. pour cela aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes-là qui demandent euh, une prise en charge de formation par le 3FPT ont été financés, ont été encadrés dans le domaine, surtout dans le BTP. Mm. C'est-à-dire au niveau du bâtiment, au niveau de l'électricité, au niveau euh, de la plomberie et tout ça. Je pense qu'on a formé énormément de jeunes et il y a plus de jeunes aujourd'hui qui ont bénéficié de cette, de cette formation-là euh, prise en charge entièrement par l'État du Sénégal. Donc à votre avis, le programme Xëyu Ndaw ñi peut bien régler euh, les difficultés qu'ont les jeunes pour trouver de l'emploi? Non, attendez, le le, programme Xëyu Ndaw ñi a trouvé sur place euh, euh, euh, euh, une vision politique que le président de la République avait mis sur place. Mais à un moment donné, il est important d'évaluer ce qui a été fait. dans un contexte euh, particulier que le président de la République a dit aux jeunes du Sénégal que j'ai entendu votre discours, je vous ai compris et c'est pour cela qu'il a pris des mesures idoines. Mm. En, prenant ces mesures-là, il a pris l'engagement de mettre sur place 450 milliards mm. de francs CFA pour une durée de 3 ans. De 3 Maintenant, le, le, programme Khayoun est en train d'être élaboré mm. dans toute l'étendue du territoire national, -hmm. malgré que je suis du parti au pouvoir, mais je demande aussi à ce que l'évaluation soit, soit faite mm. pour qu'on puisse avoir à l'instant où nous parlons, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et s'il y a des corrections à apporter, qu'on l'apporte oui. le plus rapidement possible et qu'on évolue l'impact euh, de ce programme Réunion Diaouni sur l'employabilité des jeunes. C'est important. Hassan Sambo, bonsoir. bonsoir. J'espère que nous n'avons pas trop perturbé le Ndogo. <laughs> non, ça va. Un plaisir, Hassan, de vous avoir au bout du fil pour décortiquer le discours du chef de l'État, discours de 15 minutes, pas trop long. Alors, euh, qu'est-ce que vous retenez ou qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous, analyste politique Oui, merci Fatou. Je salue euh, tous nos amis au, niveau du studio, mais également ceux qui nous écoutent. Mm. Alors, il faut dire que précisément, je pense que c'est une fête de la jeunesse et de, l'armée. Et le président a voulu simplement... Mm. rendre hommage à ces deux points importants de notre société. Hmm. Euh, D'abord les militaires euh, qui assurent la défense hmm. hein, et parfois même la, la sécurité, la hmm. défense et la sécurité, euh, indissociables. Donc au niveau également de la région sud, ce qui est en train de se, de se passer, ce qui est en train de se passer. Donc un clin d'œil aux forces armées euh, pour leur rendre hommage, mm. hein, notamment à ceux qui ont perdu la vie, ceux qui sont blessés, etc. Mm. et lancer un appel à la cohésion nationale, à l'unité nationale, mmh. mais également aux, aux, rebelles de baisser les armes, etc. Mmh. Euh, pour les jeunes, euh, ce que nous retenons notre, euh, essentiellement, c'est, ce sont les politiques hein, de jeunesse, mmh. euh, notamment pour l'employabilité, mais également pour euh, la fourniture d'emplois mhm. euh, tout ce qui a été fait comme effort au niveau de la formation professionnelle pour mhm. renforcer la capacité des jeunes, les programmes mis en place ça et là, Euh, donc c'est il a tenté une sorte de bilan, voilà, de, euh, de bilan mmh. euh, pour faire le point, mais peut-être aussi dégager des perspectives euh, mm. pour l'avenir. Il n'a pas été long, comme vous l'avez dit, et je pense que c'est pas un discours euh, où on a senti vraiment de grandes déclarations. Mmh. certainement, juste marquer la fête mm. hein, en rendant hommage aux jeunes et à l'armée nationale mmh. et aux forces de défense et de sécurité en général. peut-être aussi essayer dans la dynamique euh, de la qualification mondiale mais de la Coupe d'Afrique, essayer de, redonner davantage euh, espoir mmh. à mm. cette jeunesse-là, sénégalaise, sur, sur, qui bien entendu compte la nation mmh. et pour lequel, pour laquelle l'État la, du Sénégal a, a consenti beaucoup d'efforts. Mm. Même si au demeurant, maintenant, il y a, des flous, évidemment, euh, dans la démarche. Euh, on ne sait pas sur la base de quels critères les gens sont sélectionnés, euh, on ne sait pas trop l'argent qui est débloqué, est-ce que vraiment ça, ça, va vraiment aux, aux bénéficiaires. Euh, voilà, des, des, questions comme ça. Mm. On, on, les a soulevées pour la DER, on, on, les soulève également pour tous les programmes de jeunesse, euh, ce qui concerne le PRODAC et tout. Mm. Euh, il a parlé de Kormomassa, il a donné pas mal d'exemples de projets mmh. qui, sont, qui seraient en cours. Mais comme toujours, hey, nous avons. C'est la transparence qui fait défaut. Oui, oui, oui. Évaluation, transparence, contrôle, <laughs> bilan. Euh, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop euh, qui en bénéficie. On peut nous donner. Et puis les chiffres qui sont avancés en milliards. Euh, voilà, 700 milliards, etc. C'est beaucoup. euh, par rapport au fait que nous, quand on regarde notre entourage, on voit toujours les jeunes en train de se pavaner. Mm. Euh, on ne voit pas de grands changements. On, on, on, se demande qui en bénéficie et sur la base de quels critères mm. ils sont sélectionnés. Et on se dit, bon, est-ce qu'il y a un impact positif Est-ce que l'argent n'est pas englouti, détourné à d'autres projets, à d'autres euh, à d'autres fins euh, c'est des questions comme ça qui, euh, sur lesquelles on n'a pas véritablement de réponse et qui font que Euh, évidemment, euh, les gens restent très sceptiques par rapport à ces types de discours mmh. qui mm. sont certes une formalité importante, une sorte de voilà de, de, de, de, de truc qu'on respecte chaque année, voilà, euh, mais qui, qui, en fait, chaque, chaque fois qu'ils nous laissent sur notre faim, <laughs> on ne voit pas des résultats concrètement sur le terrain, mmh. véritablement. Mmh. Merci Hassan, euh, analyse très claire et très pertinente, machallah. Nous passons à la version wolof juste euh, moom mhm. Hassan loo jàpp euh, wala lan nga jàpp ni moom la ñu war a gën a téye si li président Macky Sall wax léegi discours bu fukki simili ak juróom guddul noonu par rapport peut-être ak yeneen discours yi euh, lan moo si gën a fës si sa xalaat. waaw discours sargal la sargal armée bi. sargal jeunesse bi yaakaar naa seen fête la fête indépendance bu ñu koy wax feetu armée bi la mais feetu feetu aussi jeunes yi euh, surtout foofu la président république ñaar yooyu la gën a analyser def ci espèce su bilan mm-hmm. ginnaaw bi mu sargalee armée bi ak force de sécurités et yëpp ci seen mission yi nga xam ne métti na gis na jafe-jafe yi lancer un appel à la paix surtout xam naa euh, bàyyi wàlla xel lay xew ca euh, sud réew mi Euh, fële ci bët saalum ba donc yooyu yëpp mu bàyyi ci xel euh, sargal armée bu baax a baax euh, gis war nañ ni maa ngi seen wet gis naa coono yi gis naa kii te lu ñu mën a def rek dañ ko def pour armée bi gën a mën a taxaw ci sécurité bi ci ay mission beneen bi mooy jeunes yi ay projet parce que jeunes yi tamit dañ leen waxoon en deux mille vingt et un mars ñu leen dégg nañ leen ça fait un an maintenant Euh, vraiment euh, jeunes yi aussi et c'est vrai que gagné nañ fi nag Coupe d'Afrique euh, qualifié nañ feeg yooyu sport bi am na ay avancées mais il faut que aussi ñu am les mêmes avancées sur le plan économique et sociale foofu nag mbiru tiré na fi ay bilan wax na ni ñu ngi liggéey lii def nañ lii def nañ tel projet pour xale yi mën a am xëy mën a nekk prêt aussi pour mën a am xëy pour mën a liggéey bu ñu la joxee xëy ñu mën ko liggéey mm. formation professionnelle ak effort yi nga xamante ni moom lañ ciy def euh, ak yëpp président euh, insisté na ci pour wane ni daal ñu ngi ay euh, seeni mbir yëtteel nañu yéen waa jeunesse Sénégal yeneen avenir réew mi bu ñuy wax indépendance bu ñuy wax loolu jeunesse bee tax aussi également donc yooyu euh, def na ci bilan mais du discours boo xam ne daal de kii bu mag def ci génn ay déclaration yu mag def ci génn euh, discours la boo xam ne également comme ni ñu koy waxee toujours rek euh, espèce rite la voilà <laughs> le la protocole la dañ koy respecter chaque année di ko def waaye nag est-ce que jeunes yi ñu ngi gis seen bopp ci politique yi bon loolu question la parce que lu tax mu nekk question mooy à chaque fois dañuy wax ay milliards yu du jeex euh, ay sept cent milliards ak yooyu def nañ fi ay milliardaires ay milliards projet mais euh, en fait boo gestoo ku si nekk ci ñun bu gestoo jeunes yi mu dëkkal seen dara du changé euh, dañ naan mais yéen jeunes ñoo jot affaire bi ensuite yéen nañ leen nañ leen leen sélectionné maanaam nañ leen tànnee ñoom jeunes yooyu ñoom fan la ñu féete ak est-ce que am na impact dëgg-dëgg am na jeexital ci seen dundin ak dundinu askan wi ci quartier yi ak village yi yooyu ay question la yoo xam dañ koy posé wu parce que euh, man bu ma xoolee jeunes yi ma dundal euh, yi ma nekkal seen situation na meloon la mel keneen noonu keneen noon keneen noonu donc booy wax ay ay réalisation ay projet du ma ne amul am na effectivement mais niñ koy sélectionné ak ñiñ koy jox est-ce que politiser wuñu ko est-ce que détourné ñu li ëpp ci fond bi ci yeneen ci yeneen objectif yooyu ay question la parce que tant que wu ñu di contrôler di évaluer di di di wan lépp transparence maanaam lépp leer di ko teg ci ci ci journaux yi télé yi nit ñi xam di woo nit ñi d'une façon claire ñu leen di sélectionner suñu bopp voilà du ñu génn ci situation yi ñuy nekk nii mm. maanaam euh, boo jegeñee nguur gi euh, amaana sa ceeb tooy boo soree euh, voilà sa ceeb du tooy yooyu mooy mooy moo ñuy suñuy problème te wax dëgg yàlla bu buñ ci defee effort amaana nag Sénégal yi deen gën a gis seen bopp ci li nga xam ne mooy projet yi jëm ci lépp li nga xam te ne mooy secteur primaire secteur tertiaire ak yooyu mm-hmm. parce que président insiste na priorité yi mooy euh, na ñu def ba ba am autosuffisance alimentaire. Mhm. parce que yooyu ay question la parce que yooyu heure bi waroon na fekk ñu régler question yooyu waaw di bay lu doy euh, mboq euh, dugub comment dire ceeb blé ba ci blé parce que mën nañ ko yooyu yëpp mais effort yooyu dafa des ñu négliger ko bàyyi àll bi ne yàmmalang kenn neew fi xale yi tëdd ci. ci ci quartier yi yenn saa yi ñu mës tuuti yàmba bopp yi yàqu bon yooyu vraiment après nga ñëw def sa discours bu naaj takk say verre mais après du tax affaire yi avancé donc nañu gën a yokk effort yi gën a indi transparence euh, vraiment gën a jigéen askan wi askan wi pour gën a xam lu ñu soxla foofu nag ñu gën ñu gën a orienté projet yi Euh, bàyyi kayit yeeg discours yi rek wàcc na ci terrain bi ànd ak ñoom liggéey yaakaaroon naa loolu foofu noonu la Sénégal di doxee. Mhm. da war a doxee pour mën mën cee génn. jërëjëf Assane Euh, merci jërëjëf ñu ngi lay bàyyi nga dem yeggali ndogu bi xam naa noppeegoo woon <laughs> jërëjëf Assane Samb analyste politique directeur de publication Rewmi euh, Quotidien Moussa je pense que Assane euh, vous rejoint un peu par rapport au programme de jeunesse et peut-être le manque de transparence qu'on y note souvent est-ce que quand le chef de l'État parle d'autosuffisance alimentaire cela suscite aussi de l'espoir chez vous Eh, waaw mais nga may ma ma sargal mag moomu di Assane Samb mm-hmm. di ñaanal yàlla guddal ay fanam wéral ay cëram mm-hmm. dafa bokk ci langue gi ñu nekk muy mm-hmm. communication ak média ci ay référence ñu mel ni bu ñu leen yoree nañ leen ñaan yàlla parce que dañu dañu jàmbure faruñu fenn waaw li ma ci xaw a jaaxal sàmben bi mu ngi tudd ay ceeb yu tooy ak <laughs> jàppal bàyyi kon sama chef de village boobu maa ngi koy nuyu bu baax a baax <laughs> mais mais li mu wax xam nga ci suffisance alimentaire am na jamono président génn décrété ko. Mhm. ne balaa ñuy àgg dal sangam danañ mhm. am. président Pape Diop génnoon ne ko du noonu du foofu. Mhm. c'est un processus. ay na yéwén def nañ ci jéego yu bari. nañ ci gën a ñaaxaat nit ñi ñu jubluwaat ci loolu. le fait que mu ci insister day dalal suma xel. ndax Sénégal mënta jaar feneen fu dul si l'agriculture suñu bëggee développer. bay li muy lekk. loolu itam ñu bañ a dekko xale yi bañ a complexé. foog ñu décomplexer la jeunesse. Okay. sunu étudiants yeeg sunu activistes yeeg sunu gis nga mbir mi du tiim micro di wujjante ci wax. Mm. moo tax je tire un chapeau. à quelqu'un ko dina ma mere xam naa su ma déggee Abdourahmane Sow bu COS M23. ok mu ngi ci àll bi di bay lu rafet. Mm. bu xeex jotee mu ñëw dina toog ay trois mois du teg tànkam Dakaaru mu ngi ci àll bi yori toolam mu baal ma bëggul ma wax ko mais exemple yu mel noonu dañ koy war a wax xale yi war ko wax mm. ndaw ñi. waaye di wax président autosuffisance alimentaire fii ci Sénégal su ko buggee ñun dañu am ay soupape yoo xam ne nii boo ci jaaree am gëm naa ni bu seeti jee sëñ taxaa dem seeti ji sëñ Babacar Si sunu kilifa diine yi am na lu ñu mun ci xale yi ñoom ñu jóg ñu jógandoo jël ay orientation dem je n'ai rien contre nawetaan mais énergie bii ñu def ci nawetaan yi bu ñu defoon nawetaanu tool ku dàqale tool ñu fay la kon réew mi jëm kanam donc bu ci insister dama ciy kontaan lool parce que day continuer une vision mhm. bi nga xam ne nii le président wadd Wade l'avait impliquer mhm. jox orientation boobu su le président Macky Sall waxee ni d'accord ak man encore que ni c'est un processus ñu nangu ni effort yu bari am na ci mhm. di saluer aussi effort bi ñu def par rapport ak euh, budget campagne agricole bi nga xam ne yokku nañ ko mais muy sëñ Assane Samb muy mon jeune frère muy man dafa am fu ñu tombé d'accord mooy foog ñuy def politique d'évaluation xam nga di nga am idée mu baax ña ko dégg foog nga leen di natt li sooxee ñu rectifier ko mhm. mais bu fekkee da ngay jël di teg di teg dina amaa fii sooxee doo ko xam mhm. donc le fait qu'il parle de l'agriculture en tout mhm. cas man de bokk naa ci parce que dama nekk koo xam ni moom lay tooñee président Pape Diop c'est un c'est un amoureux de l'agriculture soo ko invité ci télé boo tuddee agriculture émission bi yàqu na lépp da koy wax ci mbiru mbay parce que effectivement foofu la ñu war a dem mais mbay mi dafa am koy encadrer nañ doon bayee yaa a dix ans xale yi bayeetuñ ko. Hmm. am na style boo xam ne dama koy wax ni gis nga 4x4 oto àll la. quand tu vas aux États-Unis c' est ça pour ce qu'on gentleman farmer gars yi dañuy yor seen 4 x dëkk ci kër bu am connexion am courant bu ñu xëyee dem tool il faut ñu mettre les commodités. Hmm. moo tax ma xam ni PACASEN bi dañ ko jéem a orienté dans ce cadre là. jeune bi dëkk ndol-ndol su fekkee ni am na courant ndol-ndol am ndox ndol-ndol am connexion ndol-ndol di liggéey ndol-ndol di bay. soxlawul ñëw ndakaaru c'est clair et pour ça je crois que ni comme ñu ngi dugg ci pakistan royal bi j'encourage le président discours tey bi ak li may li ma nekk opposant yëpp nag c'est resté dans la solennité pour nga génn ci loo ko ci mun a xalabee dina jafeñ hmm. fi ma koy wax rek gis naa ko mu ngi def xëyu jokkoo ak Macky mu bañ am filtre ak ndaw ñi pour man c'est un pas mais doyul davantage nañ gën a déglu ndaw ñi nañ gën a neutre par rapport au choix hmm. parce que bu buñ ci duggee politique dañuy biaiser quelque que soit l'idée de la politique dañuy biaiser efficacité bi mhm. mooy li la sëñ Assane waxoon léegi ni xale yi ba léegi des na ba pare mu am de la transparence avec les techniques euh, informatique la là nañuy affiché ñan lañ nan ñan lañ jox xëy. Hmm. tur nom no dëkk. Hmm. ba sàngam bu yow boo ko weddee man la am nga ci. Hmm. waaye xale yi xëy nañ jox nañ nangami xëy. te xamuñu kan la. loolu aussi ça pose problème. parce que souvent ñenn ñi intermédiaires yi dañ koy jël détourné ko à d'autres fins. pour duufal euh, euh, électorat mm. wala pour duufali militant yooyu nag ma ci appelé le président parce que damay faral di tooñ waa APR ne leen il termine un mandat ñaari ati ko fi dese <laughs> ñaari ati nag bugguma vraiment ñuy ñu ñu ñu jël énergie boo xam ne du defar réew mi parce que dama gëm ni buy dem dafa war a bàyyi réew mu jog réew mu jub te loolu ñëpp ñoo ci war a def effort du tee nag heure bu ñu gisee des manquement on alerte on critique mais waxu tayam bi pour dire vrai il est resté sur euh, la solennité mm-hmm. bàyyi xel ñaar ñi nga xam ne ni mooy armée mm-hmm. ñàkkul nag ni li mu yokk gendarmerie ak police dégg naa ko defe naa du ko wàcce ci tali bi pour ñu dóor ñu ndax gaaw na lool bu ñuy marché wala bu ñuy consort mu yebal gars yi ñu ñu ñu ñu làbbali defe naa ni c'est pour la sécurité des biens aider personne et non pas pour mater de l'opposition. C'est juste pour mettre une dose d'humour. <laughs> oui. Alors, peut-être évacuer la question de l'autosuffisance en wolof comme Moussa xuus na ci Abdoulaye Diagne euh, ngay coordonnateur maire. alors euh, tey président su waxee autosuffisance yaakaar nga ni war nañ ko mun a gëm 2017 nag ngeen ñu waxoon dinañ am autosuffisance ci wàllu ceeb waaye ba léegi gisaguñ ko est-ce que tey lu ñu mun a aussi euh, yaakaar la. am ci waaw waaw waaw jërëjëf balaa may ñëw ci loolu. Hmm. Euh, damay wax sama grand frère rek ne président Macky Sall nitu jàmm la euh, lenn ko yiite muy jàmm réew mi. ne mi ngi door opposition bi nag. Euh, non attends ah, xam nga xam nga xam nga xam nga dóor opposition. c'est ah. pas le président. parce que président bi mu fi nekkee ba léegi. soo ñëwee bugg a def manifestation daa am li nga xam ne moom la administration laaj suñ ko autorisé dinañ la encadrer jàppale la ba nga def li nga war a def ñu dégg la mais suñ la autorisé wul aussi da ngay xam ne autorisé wuñ la mais soo buggee forcer nag réew mi aussi moom grand Moussa wax na ko léegi euh, que un état doit donc état nag da ngay fort ba nga xam ne doo bàyyi kenn muy caqat caqat réew mi mm. donc loolu nag aussi dama ci dama ci ànd ak moom. un état doit être fort c' est pour cela je dis que président le président Macky nekkul koo xam ne day ñëw rek pour neewal doole opposition wala leneen ak leneen parce que jàpp naa ne son parcours institutionnel ak son parcours politique war naa mën a wees fu muy tiite nit wala ba balay jéem a neewal doole ainsi de suite parlant de la sécurité alimentaire il faut il faudrait que ñu xoolaat parce que président Macky Sall mu koy wax euh, en 2013 mu ne en 2017 bëgg nañoo am vraiment une autosuffisance alimentaire en riz. Mm-hmm. et mais bi ñu ñëwee ba 2017 bu ñu koy évaluer on avait constaté qu'au moins il y avait 1400 tonnes de riz qui ont été qui produits mais malheureusement daa am benn aspect boo xam ne euh, grand Moussa souligné na ko parce que am na loo xam ne c'est responsabilité individuelle mais am na loo xam ne aussi c'est une responsabilité collective parce que tey ñun suñu biir muy yow muy man ak keneen ak keneen soo demee suñu biir kër yi. est-ce que ceebu mbay mi la ñuy consommer parce qu'il y a absence de patriotisme économique si nous ne consommons pas ce que nu produisons ça sera extrêmement difficile pour que objectif bi ñu am ñu am ñu ñu wax ko Mali bi nga xam ne moo nekk suñu wet malgré crise bi ak problème yu muy am yëpp Mali tey ceeb bi muy dundee ci biir Mali lañ koy béy te ñun Sénégal yaakaar naa ne aujourd'hui suñu waxee ne population boo xam ne 60 pour cent de la population s'active dans le secteur agricole contrairement en Europe par exemple soo jëlee France 3 pour cent ñooy activés dans le secteur agricole pourtant ils parviennent à assurer la sécu leur sécurité alimentaire ñun 60 pour cent de notre population donc foofu noonu la ñu war a xoolaat nag lan moo doxut lan moo doxut mécanisation la mécanisation de du secteur agricole mais aussi ndaw ñi parce que ndaw ñu bëri da ngay am un master 2 ne non damaa war a dem war damaa war a doon un bureaucrate il faut qu'on déco décomplexe les jeunes pour décomplexer les jeunes nag il faudrait aussi qu'on les encadre et qu'on les oriente et qu'on les motive aussi à ce que ñoom ñu dem vers le secteur agricole parce que suñ fa demee avec xam-xam bi ñu am da ngay gis un ingénieur agronome sax un ingénieur agronome sa place n'est pas dans un bureau non non mais allez-y dans les bureaux tu trouves là-bas des ingénieurs agronomes xam ne tey leur place c'était d'aller dans sur le terrain encadrer les agriculteurs Euh, orienter leen pour que au moins la productivité gën a mën a augmenter wu. loolu aussi si dès la production augmenté wu day ñu permettre aussi ñu ñun itam ñu gën a engager beaucoup d'emplois au niveau du du secteur mais 1400 tonnes produits entre 2013 2017 loo xam ne mosuñ ko am mais en réalité sénégalais yi ko donc il y a une absence de patriotisme économique mm. d'où j'interpelle la responsabilité collective de tous les sénégalais de pouvoir produire ce que nous ce que nous consommons loolu c'est un aspect autre chose aussi muy euh, souligner ko léegi par rapport ak la transparence dans les différents euh, dans les différentes politiques mmh. mises en œuvre pour la jeunesse sénégalaise gis nga man boo personnellement jeu dis de façon sincère et très honnête je l'ai dit encore une fois parce que président de la république ku gis trajectoire bi ak lu muy nu mu nu mu nu muy liggéey nu muy liggéey nga xam ne kii c' est quelqu'un qui est amoureux de son de son son pays c' est boo xam ne il veut changer le pays il veut faire le Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035 mais ci biir loolu nag ñu muy àndal muy ñi nga xam ne dañ leen a jox ay responsabilités ñuy gérer des mécanismes yoo xam ne ça touche directement les préoccupations des jeunes na ñuy parce que président bu muy jël initiative bu xëyu ndaw ñi dana na bar hmm. un an après un an après xam nga lan doon xaar hmm. na bar man loolu laa doon xaar en tant que ndaw c'est-à-dire ñu defar lu tour de tous les départements du Sénégal ne monsieur le président après la mise en œuvre du programme xëyuñ ndaw ñi ñu injecté ci cent cinquante milliards voilà le résultats voilà le nombre de jeune mais est-ce que moom exigé na loolu tamit. non parce que euh, euh, grand frère wax na ko léegi. avec l'initiative Jokko ak Macky bu muy nekk ak waa Pikine ak waa Kër Massar Cette question a été soulevée. Il a demandé directement à, euh, à Pape Sarr de la DER mu ne ko nañu jël la liste de tous les jeunes qui ont eu des financements à travers la DER. Hmm. ñu publier ko. Au début c'était par rapport euh, éviter la publication des données à caractère personnel. Hmm. mais fu ñu demee foo xam ne nag xaalis boobu xaalisu réew mi la jeune bi def projet demandé ñu jox la financement waroo mën a bañ ñu publier sa pour que ñu mën a xam ne jeune bii jot lii gox bii la nekk nañu dem xool activité bi financement bi bi mu jëloon est-ce que am na rentabilité wala amul rentabilité. Hmm. lan moo ko bloqué est-ce que encadrement bi ci waroon pour que jeune boo mën a réussir euh, son projet réussir na ko ou non donc moi je pour que tous les jeunes qui ont bénéficié des financements. muy euh, bon de formation ci 3FPT muy bon de formation ci office national pour la formation professionnelle et technique ñoom ñëpp ñu mën a def la liste publier ko Sénégal yi yëpp teg ci bët loolu je pense dina dimbale président de la république mais dina dimbale sénégalais yëpp bët ku nekk du waxati ne tant de milliards investir nañ ko alors que amul transparence mais on peut avoir la présomption qu'il y a la transparence parce que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui tey ñu xëy ci à travers initiative bu président de la république à travers vision boobu mais li war nag mooy un an après franchement bëgg naa ñu def évaluation lii nag c'est pas la première fois ma koy wax hmm. wax naa ko ci dans un plateau ma ne demande à ce que vraiment ñu def évaluation ba nga xam exactement ban jeune moo bénéficier wu form euh, financement ban jeune moo bénéficier wu formation ak ban jeune moo nekk ci lii ak lii bi nga xam ne état moo ko accompagne hmm. loolu nag day baax ñu souligner ko nga permettre ma aussi ma aborder benn question. Mhm. parce que dafa am solo. loo xam ne tey président de la république da koy wax chaque jour ci discours am. Mhm. et répété waat na ko aujourd'hui muy la crise Casamance. man damaa jàpp ne tey bu ñu juddoo ba léegi dañuy dégg la crise en Casamance la crise en Casamance. Mhm. waroon nañoo dépasser affaire boobu et li ñu fay gis nii wax naa ne grand bi wax na ko léegi question de banditisme la en réalité loolu nag amul li amul li l'État doit prendre ses responsabilités de régler définitivement ce problème-là parce que la Casamance est un territoire du Sénégal et elle restera un territoire du Sénégal donc benn pàcc ci biir réew mi mënta nekk ci crise beneen pàcc bi am jàmm non duñ mus a am jàmm il faut que ce problème la soit réglé définitivement et je pense l'État a toutes les possibilités et tous les atouts pour régler définitivement ce problème-là et président gis suñu gisee li xewtaay yëpp mu ngi nekk ci dynamique u régler définitivement mais il faudrait que la population se mobilise autour du président pour l'atteinte de cet objectif parce que président su ci nekkee te ñeneen ñi di def leneen loo xam ne pour enfoncer la crise la day xaw a dee waar am na loo xam ne nag lépp mënuñ koo wax ci plateau télévisé mm. mais il faudrait que la population se mobilise comme un seul homme pour accompagner le président le soutenir pour régler définitivement la crise en Casamance mais en réalité par rapport au programme Xëyu Ndaw ñi et au programme euh, pour l'employabilité des jeunes tout en sachant qu'aujourd'hui la problématique de l'emploi est une problématique mondiale ah. mondial hmm. taux de chômage bi mi ngi ci vingt quatre euh, euh, pour euh, cent. vingt quatre pour cent mais malgré tout ça le Sénégal ñun ñu ngi def ci li ñu ci war a def le Prodac et là l'ANPEJ est là le FONGIP ainsi de suite mais le problème en réalité damay jàpp ne sax ci ñun la ñun en tant que ndaw ñi. ci naka. ci naka parce que nekkul ne ñun ñëpp dañoo war a nekk ci administration nekkul ne ñun ñëpp dañoo war a nekk dans un bureau climatisé am nañ suuf si am nañ ndox mi yaakaar naa ne dara terewuñu pour béy wax na ko léegi ci un jeune boo xam ne pourtant ñëpp xam nañ ko day def lu muy def mais mu nga ca àll ba di béy yaakaar na dañoo ne la terre et créatrice de richesse. Mm. non non la terre est créatrice amul leneen loo xam ne mën nañ koo mën a def pour développer suñu réew te jaaruñ ci suuf donc je pense dans ce sens là je lance un appel solennel à la mhm. jeunesse avec les efforts du gouvernement dans la mesure où président jël na soixante-dix milliards tey injecté ko dans le dans le secteur agricole parce que mhm. quarante millions la ko fekkoon yóbbu ko ba soixante millions mu yóbbuwaat ko aussi ba soixante milliards autant pour moi. Mm. donc loolu war nañoo mën a permettre ñun suñu bopp c'est une source de motivation pour la jeunesse ñu dem ci terrain bi béyi et suñu béyee li ñu war a def yaakaar naa ne d'ici deux ans trois ans dinañ am une sécurité alimentaire. alors mbay mi tout comme programme de jeunesse yi xaalis yi ñu ciy dugal yëpp dafa mel ni Moussa yëguñu ko euh, nee na am na ndaw yu bëri ñu ngi ciy xëy Assane Samb dégg nañ ko sànq nee na sa koñ moom boo geesoo ña nga daan gis rek ngay gis autour du thé du barada toog ataaya. Euh, waxtaan après jug amul benn changement euh, kon est-ce que yaakaaroon ni problème mu régime bi notamment président Macky Sall mooy xëy na ñi koy liggéeyal euh, est-ce que moom tamit exigeant na ci wàllu transparence ak wàllu résultat bu la santee dara topp la jox ma li nga liggéey ma xool évaluer la parce que tamit bon à la fin ñun moom la ñuy moom la ñuy évaluer ah moom la ñu faloon effectivement président la ñu faloon ci mbiru xëyu xëyu ndaw ñi moom euh, feebar la bu dal askan yëpp ñu nangul ko ñëpp waaye ni mu mel ci Sénégal ni nga ko waxee léegi la euh, bëgg nañ xam yi su yan yan xale milliards yi ñuy wax ñan lañ ko jox mm-hmm. parce que man bëgguma di accuser mais man su ma suma ma mm-hmm. mooy suma ma mooy suma ma koñ mm-hmm. mooy xale yi may nekkal suñu xëyee dañuy am problème mu xëy c'est important bu transparence amee rek xale yi sax dinañ ñeme dem wuuti ji waaye xale yi koo jox ma la non affaire bi c'est politique. Mhm. dangay dem ba ñoom xale yi seen bopp amatuñu cawarteefu dem déposer ci wala dem concourir parce que jàpp nañ ni soo amul carte APR wala jegewoo nguur gi. doo ci am <laughs> looloo tax nag réponse bi mooy transparence bi. parce que bari na ñu may dégg léeg-léeg benn affaire am ñu wax benn groupe d'activistes ne jox doon ngeen financement fële jotoon ngeen dafa baaxul. Mm. ku dem ba jël financement wu suñu réew. war nañ mën a bind sa tur ni Moussa Diakhaté mii jox nañ ko financement nangam mu lew tamit te mu normal aussi même boo àndul ak président Macky Sall mm. mais au moins su boobaa bu nit ñi di weerante jox nañ wala joxuñ dinañ ko mm. gundi di ah. tax nag mu andi di tax di tax affaire yi nee na nee na données à caractère personnel yi lañ doon sàmm waaw mais wala loolu lay la boo boo demee boo demee mën naa leen ko nangul quand parce que ci jamono toll ak cybercriminalité mm-hmm. damay nangul ñooñu mais mm-hmm. dama li tax parole président du ma ko si génne. Mhm. parce que man lu may wax rek damay andi firnde gi. Mhm. président moo ni woon ku ñàkk base ma dàq la waxu ko fi. Mhm. bu fekkee nag ni da nga bëgg sax noonu la demee bu fekkee bëgg jël critère politique di ko nattee liggéey katukat ki nga fal defatul performance si résultat. day fexe nu mu amee base bu mu gagné. defe naa ni foofu erreur de communication la que njiit du waxee noonu. looloo tax gars yi ku ci falu li ngay njëkk a lijjanti mooy sa entourage. mooy dëkk ba mhm. mooy gox ba nu may fexee ba am ay ndaw yoo xam ne nii dañ may bénéficier moo tax j'en profite pour saluer ce garçon que je viens de découvrir mmh. un étudiant mhm. mais très lucide bokkuñ fu ñu far mais boo déggee ma président Macky Sall la faral mais da ngay xaw gis xam-xam ak yéeney wax li nga xam ne ni mooy jëriñ kilifaam te nekkul ci mu baal ma ci wax ji ci larbinisme wala ci il faut ñu àgg à sa niveau de débat mhm. far du tee man yow parfois je tire sur l'opposition su ma àndul ak ñoom ànduma ak ñoom effectivement naan da ngeen di kii sax waaw waaw ñu ngi di ñu ngi di da ngeen di dàkkam <laughs> mais mais loolu beneen débat la danañ ci ñëw man damay mhm. faral di yónni yàgg rek mhm. dans tous les débats te politique damay faral di ko wax ni lu waaye di def mhm. tu n'as pas le courage de l'assumer bàyyi ko man du opinion mooy di li ñuy def ak li ñuy bel mais daal discours bi ay na yeween bëgg naa sànni xeer ci wu président juróom la ko def li ci ëpp mooy armée bi. ak ndaw ñi ak ndaw ñi. Mm-hmm. ak yi nga xam ni nee na def na ko. Mm-hmm. te itam ay infrastructure par exemple. boo ah, ci doon évaluer ah sur ce point là il a beaucoup fait. Mm-hmm. boo duggee keroog bi ma gisee le pont de Foundiougne. Mm. j'étais émerveillé j'étais fier d'être sénégalais. Mm. bi mu duggee ci terre bi nga xam ne ni dama ko critique te ma pour man liñ ci dugal ci alal. dafa bari bari na. transparence mais boo ko duggee. tu savais que ni amoon na njariñ. hier j'étais avec quelqu'un xëy na mu may dégg un certain monsieur Ndiaye. qui habite Kër Mbay Fall ma war a jëm fekk ji ko Kër Mbay Fall jël terre bi en moins de vingt cinq minutes ak Sina hmm. ma ni am na ressenti bu muy def liñ mën a waxtu kenn wax du nekkatul priorité soo ko waxee waa Kër Mbay Fall mere la hmm. waaye liñ ci def ci alal BRT bi may gis ñëwagul il faut ñu expliquer parce que sénégalais xamuñu hmm. les gens n'ont pas compris gis ne ñu ngi gas chauffeur di mer nit ñi di mer une communication d'État hmm. doit et une communication qui doit anticiper hmm. waaw doo xaar ba coow am ngay door expliquer ñoom war nañ jiitu askan wi ba yow man yow journaliste bi taskatu xibaar bi hmm. moom étudiant bi mu xam les tenants et les aboutissants li ko andi mooy dama ànd ak samay doom démb ñuy weerante joge ville seen kër maam di ñibbisi ñu aw ci grande mosquée bi ñuy weerante ni terre bi fii lay aw berte bi fii lay aw côté bi lay aw côté bi papa fan lay aw j'étais pas en mesure de leur dire fan lay aw comme man mi nga xam ne nii y a pas bu leer des na yu mel noonu dafa baax day permettre ni ñi adopter le projet mm-hmm. mais en termes d'infrastructure on peut discuter sur les prix mm. mais il y a de la qualité et puis il y a des il y a à l'intérieur du Sénégal sur ce point là le président Macky Sall topp na ci eh, tànki président Wade coow li mm. kay mooy il a fait plus que le président Wade ou il a fait autant ou moins mm. mais en réalité il faut accepter que sur ce domaine la effectivement mm-hmm. comme ni mu ko nettalee ni mu ko waxee am na ci ay infrastructure léegi nag mm. na jublu ci mbiru mbay mi mbiru xëyu ndaw ñi euh, su ko defee ak ak ak ak boole boole ak ànd ak dal bàyyi bu gaa yi bëggee marche mu may leen ko parce que bu ñu leen ko teree boo seetloo temps yëpp gaa yi ngi marché. gisoo si benn coow. heure bu ñu teree marché boo seetlu li ñuy déployé ci homme de tenue bàyyi woon ñu marché sax. moo moo mooy que doon na leen encadré. effectivement mais léeg-léeg gis naa ñu génn fi ay lacrymogènes yu bees yu ñu daan wax dañu ko xoxatale <laughs> dañu ko tiitalee mais bref l'un dans l'autre daal. Mhm. li am solo mooy un pays doit respirer. Mhm. dafa war a am des discours divergents. Mhm. parce que man loolu laa gëm mu am mu am confrontation d'idées. mais nag ci kaw yar. ci kaw yiw man lu yar ak yiw bokkul ku ma ci seet doo ci fekk. doo la ci fekk alors euh, gis nañu tamit euh, Moussa benn euh, peut-être avancé mooy délai travaux yi léegi délai yi moom c'est autour de set mois dafay gaaw. non non loolu loolu ah. loolu bi la rek. stade bi la rek. am na am na leneen annoncé nañ fii terre bi bi def ñaata at mu ngi koy def <laughs> stade bi moom honnêtement dama ni. il faut être vraiment de mauvaise foi. Hmm. pour tirer sur le président. la qualité du stade le standing du stade. la durée de travaux. honnêtement na fi travaux yu bëri aussi. ba pare nag ñu jël ko tuddee ko non tant mieux. Hmm. man dem lépp lu ñu def. waroon def ci fukki wat fukki weer ak juróom def ko ci fukki weer ak ñaar il faut applaudir hmm. parce que dañu nekk en urgence au Sénégal tout est urgent. et bu ñu gisee ñu def effort yooyu on salue. Hmm. li ñuy wax rek encore mooy de la transparence beneen bi aussi nañ ci boole les hommes d'affaires sénégalais. le secteur parce que seen terre bi euh, société bi géré bi. c'est pas des sénégalais. BRT bi aussi. BRT bi aussi. Mm. mais loolu yëpp dama ni xëy na début la mais nañu réfléchir comment nationaliser c'est c'est ce fleuron de l'économie. Mm. suñ privé yi aussi parce que problème mu Sénégal mooy problème mu bokk. il na du ñu def unité. dañuy tibb tey tànk tey ni Fatou Thiam mu ngi doxal nan lay fexee ba xool mbootam su li ko. duñ saluer ne journaliste bu duñ saluer ne jàmbaar la. Hmm. au delà du journalisme j'en pour le dire tu fais beaucoup d'humanisme. Hmm. yaa ngi ci jàppale néew ji doole yaa ngi ci mais non non am na ku naan ak waane <laughs> ak ma parce que ñun sénégalais ñoo nangulante loolu suñu biir. Hmm. il faudrait que aussi suñu secteur privé bi ñoom itam ñuy def ay unités yu fort di mën a compétir. parce que nag. su fekkee ni dañoo bëgg ni dañoo nekk dans un monde planétaire mm -hmm. il va falloir foofu laa koy waxee ni ko li tax ceeb bi am problème di ko lekk y ceeb bi dangay gis bii dijji ah, bii sew c'est problème de qualité hmm. pour inviter nit ki aussi muy ah. consommer local nañ mettre au même niveau qualité bi loolu itam may profité di wax ministre de l'élevage hmm. suñu der yi ñuy am tabaski tam xarit consort fu mel ni ngaay mexe il faut ouvrir une tannerie industrielle der bi ñu jariñoo ko ubbi fa école j'en profite pour dire parce que le ministre euh, kii Diop yor affaire euh, enseignement professionnel Dame Diop Dame Diop mhm. c'est un homme qui connaît le milieu mais na bàyyi xel yu mel noonu ñaata nagay dee ci gàmmu tamxarit màggal ana der yi nuñ koy def dañ koy jiggaani mboq bi gis nga pataas bi ñu bay ak Guiya qui la capital de la patate day jéggi dem Mauritanie ñu transformé ko def ko biscuit ñëw di ñu ko jaay yu mel noonu la ñu war a yóbbu suñu xale yi ñu travailler dans ça pour que ñu mën a am une révolution industrielle passée par l'agriculture moi je rêve de l'exode urbain gars yi est-ce que loolu laajul vision politique mooy li ma wax rek mooy mooy mooy mooy le wax doit s'ouvrir hmm. davantage. mu ngi jeexal président Macky Sall mu ngi jeexal. Euh, mais comme je dis c'est un libéral. non wax de. ñoom non c'est la vision la wax. Ah. c'est la vision moom la li ma dégg. boobu non li ma dégg ñuy wax. Ah, parce que damay profité sànni xeer sama benn xarit. <laughs> Mame Mbaye Niang mi lancé woon Genèse 35 bi ma ko déggee. daf ne vision la wax. une vision nag transcende les hommes. waaw gis-gis la. Mhm. te effectivement man gis-gis bu sori. Mhm. te moo ma gënal gis-gisu ñetti fan. loolu itam encore une fois bu fekkee dana ñeen fi bàyyi mais li am solo muy président Macky Sall parce que erreur boobu la def ci président Wade les acquis dafa ñëw di nature gis nga réew boo fekkee acquis da nga koy consolider nga ubbi yeneen i yoon. Hmm. xeexu tëj Karim Wade CREI moo tardé le président Macky boo seetlee dans son premier mandat. il a pris trop de temps sur les traces de bilan bi ba liggéeyul. Hmm. man nag ma koy invité comme il termine nu ubbi les vannes nii muy defee nekk en contact surtout. avec la jeunesse sans filtre. wax ak ñoom booy parce que un jeune doit être libre de dire ce qui ne va pas. Mm-hmm. mu jël note joxe des instructions pour l'intérêt du Sénégal. Mm-hmm. alors euh, xam naa ne léegi ñu war a jeexal bàyyi leen ngeen dem xooli reer bi gars yi pël yi ñu ngi xaar <laughs> eh, Abdoulaye Diagne euh, tey président Macky Sall euh, gis nga ne am na vision bu mat bu nga xam ne moo war a booster wala propulser jeunes yi Moussa wax na fi léegi ay ay mbir yu am solo mais est-ce que loolu tamit laajul xëy na président Macky Sall gën a pousse gars yi xàll yoon yi ñu mun ci jaar par exemple patate bi der yi ak yeneen i mbir yoo xam ni Sénégal moom ñàkkul luñ fi mën a liggéey parce que lépp urgence la fii lu ci bari bitim réew lañ koy jëli Euh, madame Thiam euh, li may njëkk a wax d'abord parce que lii mooy Sénégal mm. euh, dañoo nekk réewu jàmm réew moo xam ne ñun ñëpp a ko bokk ku nekk loo ciy wax ak loo ciy def na doon loo xam ne pour njëriñu réew mi la et taxawaay boobu la grand Moussa am parce que opposant mooy gis dara loo xam ne doxut mm. nee na lii doxut mais nga gis lu baax aussi pour sa réew. Mm. nga ne lii lu baax la. mais du saaga. Mm. du xaste. du du du jéem a indi parce que nekkoon nañ ci nguur. Mm. mais bu ñuy nekk ci nguur wala bu ñuy dem ci nguur. amuñu ko avec les armes. amuñu ko avec la violence. ils l'ont eu avec toute une responsabilité. mais aussi avec toute sérénité. jaay seen projet de société au Sénégalais. donc yaakaar naa ne démarche boobu la ku nekk mën a war a mën a am et président de la république aussi exemple boobu la doon que muy au Sénégal muy dans la sous-région muy au niveau mondial. Mm -hmm. donc tey yaakaar naa ne fu ñu jëm nii euh, dafa am solo euh, ci président Macky parce que côté infrastructure kenn mënu ko attaquer. Mm-hmm. muy ci secteur transport muy construction des pistes de production muy. avec le PUDC euh, les forages ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite nekk na koo xam ne kenn mënu ko kenn mënu ko attaqué ci côté infrastructure et wax na ko léegi ci terre bi peut-être terre bi bu muy door a ñëw yawe avait beaucoup de bruit mais soo demee ba dugg ci biir après di nga xam ne lii kat vraiment jaroon na ko. Hmm. le stade à côté ainsi de suite muy un écosystème bu nga xam ne mu ngi koy construire au niveau de Diamniadio. Hmm. mais dafa am loo xam ne dafa am solo mu ko qu'on puisse euh, faire la promotion des, des hommes d'affaires nationaux. waaw le secteur privé. mais nag y a un problème un problème très sérieux parce que man je peux vous donner deux exemples. Hmm. soo jëlee l'université Amadou Mahtar Mbow bu ñuy construire à Diamniadio ab sénégalais moo ko moom lañ ko joxoon j'ai le droit de taire sono nom hmm. ab sénégalais lañ ko joxoon soo jëlee. la réfection des des stades nationaux sénégalais lañ ko joxoon. lu mhm. luñ ci gis après y' a que des problèmes y' a que des problèmes parce que même tey tey tey tey au niveau de l' agriculture bu ñuy wax parfois nga ne non dañuy bloqué di jëndi euh, soble wala ceeb ci bi bitim réew. Hmm. nañu consommer d' abord li fi ne mais su nekkoon ne kilo bi cent franc la woon dañ ko yóbbu ba cinq cent franc. Mhm. wala ñu bloqué ko stocké ko ci seen magasin yi. pour organiser benn pénurie organiser benn pénurie ainsi de suite donc mhm. loolu nag absence de patriotisme la. ak lu état mën a def effort. te Sénégalais ñoom itam amuñu une prise de conscience collective am une solidarité une communion une fraternité entre nous pour que loolu ñu mën koo jëmal aussi dafa am dafa dafay dafay. dafay métti mais mënoo ne aussi. Euh, ay entreprise dañ ko war a jox ay hommes d'affaires yu nga xam ne ay sénégalais lañ wala le privé sénégalais alors que ñoom seen bopp suñ leen ko joxee liggéey bi d'abord la qualité biñ ci séntu ah, duñ ko am aussi fulak fayda biñ ca waroon am duñ ko ci am jël xaalis bi dem kenn du leen gisati ainsi de suite ainsi de suite donc parce que l'université Amadou Mahtar Mbow mi de Diamniadio bi ñu ko joxee la société Turcula mm. bi ma fa jaaree tey léegi mu pare te ba léegi yàggut dina dina terminer les travaux avant même la dure estimée. Mm. donc loolu dafa am solo. compétitivité boobu mais la qualité est ce moyen tamit est ce que tamit. Euh, non mais mais je pense état secteur privé bi. non xam nga xam mm. nga ça ça doit être une organisation interne au niveau du secteur privé. ok ñoom ñoo war a booloo c' est à dire les les capacités financières des uns et des autres mm. diffèrent. c'est vrai ce pas. Mm-hmm. mais ñoom suñu booloo. avec une solidarité. dinañ mën a compétir état mm-hmm. dina mën a jël le les les les entreprises. Mm-hmm. les marché jox leen ko ñoom ñu liggéey ko ni ñu ko war a liggéey. Mm-hmm. mais même quelle que soit leur capacité financière suñ amul aussi la capacité de de faire des travaux euh, ki qui qui qui regorge de la qualité. loolu aussi de beneen problème la parce que mënuñ laa jox dara nga tabax ko deux ans trois ans mu yàqu ci loo xam ne durée de vie bi au moins waroon naa yegg ci. vingt cinq ans trente cinq ans. donc loolu c'est un c'est un réel problème. mais en réalité ce qu'il de faire surtout au niveau de la de la jeunesse au niveau de la jeunesse parce qu'en réalité tey nag soo xoolee au au Sénégal yegg nañ presque ba dix-huit millions de Sénégalais mm-hmm. dix-huit millions de Sénégalais tey nag pour que les projets d'emploi et d'employabilité soient plus efficaces moi je préconise et je recommande au président de la République de travailler en concert avec l'Agence nationale pour la statistique et la démographie mm-hmm. tey suñu ñu demee foofu dinañ mën a xool par rapport au taux de chômage des jeunes ban catégorie parce que taux de chômage dafa am ay catégories mm. jeune bii ban niveau la nekk jeune bii ban niveau la nekk nan lañu mën a def ba génne ko mm-hmm. ci chômage bi mu nekk suñ ko defee ñu jox ko liste bi dinañ mën a étudier loolu avec en concert avec euh, les collectivités territoriales ñu xam dans chaque commune les besoins des jeunes ak jeunes yi nga xam ne moom la ñu war a ji dimbale mm-hmm. suñ leen ñu def la publication de la liste Sénégal yëpp teg ci seen bët mais l'État aussi dafa war a continuer encadrer waat ces jeunes là qui ont bénéficié de ces financements là ah. pour que un an après deux ans après ñu mën a évaluer parce que ça nous avait arrivé avec l'ANPEJ mm-hmm. si vous vous souvenez très bien durant la période 2017 2018 2019 le président avait dégagé un budget de 3 milliards pour l'ANPEJ mm-hmm. il y avait des jeunes qui ont été financés comme moi j'ai eu la la la la la l'opportunité le privilège euh, de faire partie du conseil national de la jeunesse on avait évolué des jeunes qui ont qui avaient bénéficié de ces financements là mais gis nañ ci jeunes yoo xam ne ils ont réussi mais loolu nekkul loo xam ne c'est une évaluation qui a été faite par l'ANPEJ en personne mais par le conseil national de la jeunesse bi demoon ci terrain bi alors que mm-hmm. je pense que loolu ça doit être une, une évaluation faite par l'État du Sénégal donc loolu dina mën a permettre au moins état avec les les les milliards dégagés pour la jeunesse parce qu'en réalité da ngay sàmmul ne état deful dara ci jeunesse bi alors que l'état a beaucoup beaucoup fait pour la jeunesse sénégalaise et particulièrement le président de la république parce qu'il place la jeunesse au cœur de sa politique et loolu nag yaakaar naa ne tey muy man muy yow keneen ak keneen di cee war a def soo jëlee dans les universités tey le président de la république il a énormément fait dans les universités énormément parce qu'en réalité bu ñu ñëwee tey ñu ne autant soo amoon bac soo remplirul les critères doo dem euh, université. université président ne non pour l'équité et euh, réduire les inégalités sociales il faut que qu'il y ait un accès universel dans l'enseignement supérieur hmm. ci ci biir loolu la président génnoon def lan ñu ñu étudiants yi remplirul les critères ñu orienter leen dans le privé mais loo fa gisaat après Il des écoles de formation qui ont été mhm. créées partout et qui n'ont pas reconnues par l'ANAQ-Sup. état tamit fayul privé yu bëri. non attends mais attends parce que état balaa muy fay aussi parce que mënoo jël étudiant bu nekk n'importe quel étudiant affecté ko ci école bu nekk c'est pas normal. Mm. alors que étudiant boobu mën naa dem ba am diplôme am ñu dem. déposer dans une formation wala bëgg a def concours ñu ne la sa sa sa diplôme n'est pas reconnu par l'État du Sénégal mmh. ça mm. aussi c'est un problème raison pour laquelle l'État a un certain moment trois ans après d'expérimentation il a bloqué ce processus-là pour trouver une autre alternative avec les le 3FPT les centre de formation technique et professionnels créés dans tous les quarante cinq départements du Sénégal et loolu jàpp naa ne lu ñu war a rafetlu la mais il faudrait que la jeunesse aussi la jeunesse dem vers l'information dem vers l'information xam lu ñu bëgg aussi parce que nekkul ne da ngay jot financement rek pour dugal ko sa poste da ngay jot financement pour liggéey pour ton avenir pour construire sa réew mais jeunes yu bëri euh, dañuy jël si ban euh, euh, financement mm. rien que pour def ci leneen loo xam ne mooy lool et loolu aussi état da cee war a jël responsabilité ku jël xaalisu état da nga ko war a fay mm. à la lettre ku jël xaalisu état ah, da nga mais bu dee politisation moo ci am moom. xaalis politisation bi xam nga man. moom la Moussa doon wax sànq ne euh, gars yi. man damay dégg waa rek la ñuy jox. damay dégg ñu koy wax. Hmm. parce que ki jiite DER waxoon na ko ci benn cérémonie. Hmm. mu ne am na ñoo xam ne balaa muy ñëw ci cérémonie bi dañoo fay ay nit. Hmm. pour ñu yuuxu ko. parce que financé wuñ sa ay militants ainsi de suite mais man bi ñëwee di wax ak yow. structure laa jiite. te structure bi ci parti bi la nekk. je suis au secrétariat exécutif national parti. mais amul benn étudiant républicain benn étudiant républicain et je défie quiconque bu ñuy gis ci liste de financement bi malgré nag ils en ont droit parce que ce sont des citoyens d'abord mais suñ ko même suñu amee droit bi suñ ko defoon dañuy ne non c'est parce que il est de l'APR parce que c'est un étudiant républicain ainsi de suite ainsi de suite mais nañu xool financement bi ñen lañ koy jox ak ci ban anam lañ leen koy joxe et sénégalais fi pour APR kese le président il la là c'est le président de tous les il travaille pour tout le Sénégal loolu mooy dëgg bi ci loolu la nekk soo toogee moom nga xam ne ci loolu la nekk nekkul ci affaire militantisme wala leneen parce que daa am loo xam ne foofu la fekk Sénégal bugg koo jëmee fenn fi donc amul loo xam ne da ngay yem ki eh, uniquement ci sa biir parti politique mm. non non du loolu donc loolu nag aussi kilifa yi nga xam ne ñoo ñooy ànd ak moom di liggéey ak moom mm-hmm. nañ ko dimbali ci côté muy délégué ay mission Moussa Sànq cokkaas naa ko euh, vision bi on sait que 2035 euh, vision la euh, mais est-ce que yéen yéen a ngi ci optique jeexal dans deux ans Euh, loolu xam nga le président de la république bu muy établir le projet yoonu yokkute euh, bi nga xam ne moom la def bu mu nekkee opposition projet boobu la jaayoon Sénégal yi bu mu ñëwee ba 2013 2014 la transformer le projet yoonu yokkute en plan Sénégal émergent mhm. ci biir plan Sénégal émergent de dañ conséquence yi par cinq ans mhm. ci biir loolu nag vision la waaw pour trente ans loolu kay leer na vision boobu nag pour trente ans nag mhm. daa ne cinq ans yi lii la def lii la war a xalaat lii la war a xalaat donc je pense c'est une vision politique c'est une vision boo xam mu ngi ciy liggéey donc loolu nag ay deux ans la léegi mu jeex du jeex loolu nag je pense que le moment venu le moment venu président de la république euh, lu mu ci war a wax dina ci wax. jàpp nga ne euh, am na droit nekkaat candidat ci élection présidentielle. non question boobu man mënumaa waxee n'importe comment. Mm. parce que damaa bokk secrétariat exécutif. Mm. nekk responsable structure boo xam ne président de notre parti moom a ko dënk. Mm. donc lu ñu waxtaanee wut. ci biir secrétariat exécutif bi nga xam ne mooy l' instance suprême de notre parti mënuma koo wax ci biir. doo ci prononcé wu leer na Abdoulaye Diagne Moussa yaakaar naa ne jotaay bi war nañ ko mën a yëkkati l' essentiel a été président guddul kon ñun euh, amuñu lu ñuy guddal 15 minutes la wax et li mu fi wax yëpp pratiquement ci ndaw ñi la ko tënk infrastructure yi wax nañu ko armée bi aussi ñu jog ci di leen sargal ëllëg la Sénégal di màggal 62e kon fet d' bu ñu moomee suñu bopp juróom-benn fukki at ak ñaar ci tey ñuy euh, jaajëfal suñu jàmbaar yi nga xam ne nekk ci àll bi surtout euh, Casamance di jàmmaarloo yi ñenn ñi di ci ñàkk seen bakkan ñeneen ñi di ci amee ay gaañu gaañu ñu dellu di leen euh, sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla sàmm leen te may leen dam ci li ñu nekk ndax jàmm moo jig ñëpp euh, ñu bàyyi la Moussa nga tàggatoo très rapidement. waaw tàggatoo bi mais benn def benn kii rek parce que sëñ Ablaye bi muy wax. Mm. ci privé Sénégal yi dafa joxe des mauvais exemple ok ni mu amee ñoo xam ne ni dese nañu mën mhm. bari na de bon privés te ñaare aussi ñu xool ni ñuy joxee marché yi souvent ni day jël xaritam bëgg lu mhm. ko neex jox ko mooy andi mhm. mais toujours soyons regardants et nañ sanctionner positivement ki liggéey négativement ki liggéeyul di wax rek ni kontaan lool di ñëw di di ko encourager ndax ndaw la te soo ko dégloo honnêtement ndaw bu mën a ràññee la te mu ngi wax ak sago di ko ñaanal mu yeggali. Mhm. parce que nekk ci divergence terewul nga am yar. terewul li ngay wax aussi nga mën ko motiver. parce que mhm. soo ni étudiant nga nattatuñ la ci ci ci doole dañ lay natt ci xel. te ni mu waxee daf ñuy fàttali suñuy jamono rek bañ ci tolloo ñun itam ndax léeg-léeg mu yuuxu kañ président de la république euh, le président Macky Sall noonu la ku nekk défendre say position mhm. te ñu ñaan yàlla def jàmm ci réew mi rawatina ci koor gi ñu nekk di mhm. profito di baaluwaat ñëpp ak mhm. di wax ni comme président guddul kat ñun mënuñu guddul ñàkk guddal rek <laughs> yaakaar ni itam liñ ko dénk mu gën a mhm. mu gën a mu gën a mu gën a jaar yoon dans l'intérêt du peuple sénégalais ndamam mooy sunu ndam ñun ñëpp mooy sunu njariñ itam gaal gi ñun ñëpp ci la ñu nekk mhm. bu demee dañuy dem bu këppee itam yajwila euh, <laughs> ñooy ànd ak moom alors Abdoulaye yow itam très rapidement nga tàggoo euh, madame Thiam di la di la gërëm di la sant mhm. ci invitation bi euh, di gërëm aussi sama co-débatteur grand Moussa di ko ñaanal aussi wér ak wérle Euh, dina aussi c'est un exemple c'est un exemple parce que opposition li ma ko waxee rek mm. euh, du sanni xeer du taal ainsi de suite mais opposant mooy ki nga xam ne à tout moment dafa war a def euh, un discours de contribution pour le bon fonctionnement du pays mm. pour la construction du pays et c'est un exemple c'est une référence c'est un modèle mm. euh, que beaucoup de jeunes euh, doivent suivre donc loolu nag aussi ñun ñaanal le président de la république ki nga xam ne moom la fi yàlla teg euh, yàlla may ko doole ak kattan. Mm-hmm. Euh, pour mu fu mu yéene bi nga xam ne moom la am pour Sénégal. Mm-hmm. Euh, yàlla mën ko mëtale. ñaan aussi jàmm am ci réew mi parce que nag soo xoolee depuis presque deux ans trois ans li xew ci sous région bi. Mm-hmm. war naa mën a tiital ñëpp. loolu nag day laaj ñun ñëpp ñu am benn responsabilité collective et individuelle mm. pour manko pour jàmm am euh, Sénégal dal am Sénégal et crise aussi moo am Casamance yàlla saafaara ko ba ñu fàtte ko mm. définitivement ci histoire histoire u Sénégal. Mhm. di leen gërëm di leen di leen sant. jërëjëf Abdoulaye euh, Diagne coordonateur mouvement des élèves étudiants républicains Moussa Diakhaté porte-parole euh, bokk gis-gis ñu amoon mbégte dalal leen ci édition spéciale bi jagleeloon ko discours président Macky Sall euh, ni mu ko baaxoo def ëllëg la ñuy màggal fête d'indépendance kon mu waxaat ak askan wi tënk nag ay waxam ci ndaw ñi ak takk der yi nu ñuy gën a def ba ñoŋal seenu nekkin wante itam ñuy dundee dundee li ñuy ñiy bay itam euh, wàllu infrastructure itam dégg ngeen président Sall li mu ci wax daanu ko gën a yaatal gën ka kon becc ci jotaay xibaar yu ñu dëgmal gërëm Jacques sa Gomis Léopold Mendy ak Bemba Dramé ñi fare woon euh, ci euh, wàllu kon réalisation bi ak partie technique bi Jacques soj bee ko xaw a tey ba daan ko moo tax bokkul ak ñun plateau bi wante waroon na ànd ak ñun si waxtaan bi en tout cas ñu ngi leen di gërëm gërëm ñëpp ñaanal leen fête d'indépendance ko si jàmm te yàlla ñëpp di baalu àq di baal ñëpp merci d'avoir été avec nous